ndax mm. mm. mm? daa sosoo ci jant ak weer ba noppi moom di géej mbambu la daa sosoo ci jant ak ba noppi di géej la moom suñ fa borom xam-xam ko bind Cheikh Ibrahima Massar alaaj Pape dégg nga lii ah. daa sosoo ci jant ak weer ba noppi moom di géej mbambu la mm-hmm. Cheikh Ibrahima Diop ba ko wax laqad tanashata min samsin wa min qamarin فسيرت بحرا من الانوار تزدري <laughs> جانت وير لا سوسو دي گيج بامبولان سوني موسى كا ويكو الله وسل فضل العظيم كوم جوخ ngeenel ديفلي ييب فاضل موي فضل الحميم تورو مو دوينا خرنو بي موي دومي شمس الوخما مباكي موسو بن ko jam mo nap yaari wen moy bambe ci xamul isan isan Cheikh Amadou Fadal Darou Salam ca ama wasi sëñ la feeñ fa Touba am na ñu naan Daaru Salaam la booba ca mooma at la mbër ma génn Daaru di sañ ci Touba ñëpp yi waaru mm-hmm. kazu rajab la la jeel mm-hmm. at moomu la sëñ bi sañ ci tuubaa teri ñaan nga bee ko dalal jàng mm. fii ci kër sëñ Chouaïbou ñu koy wax Daaru Naar mook Cheikh Moustapha sëñ bi bàyyi leen fi dem ci géej gi sëñ daama jàngal seex moo du Fadal li mu wax mu mokkal maam Thierno ko jàngal xam-xam maam Thierno ko yar jàng na ci sëñ Mor Diarra ilmu tafsir jàng na ci sëñ Mbàkke Busu ma nekk géej mbambulaan ab kaamilam njëkk géej gi ba sëñ bi daataan jógee ci géej gi noppi na mhm. mook Cheikh Moustapha al Karim mu jógee ci géej gi ba dem gànnaar yóbbaale na sëñ Fallu Cheikh Moustapha ak sëñ Basiiru ñoom ñëpp demoon nañ gànnaar tërbiya gu taru gànnaar gu jabootam ci la bokkoon sëñ Fallu foofa doon na fa tërbiya ca gànnaar mhm. ci yéen Jolof sëñ Fallu demoon na neewoon ca tërbiye ga ba sëñ bi sañ ci njaareem ba 12 14 wala 13 14 mu jox leen ndigal ñu sañ ci dëkk mu sañ ci ndindi mu sëriñ Fall bari jikko yi ne ci moom nag lool Cheikh Ibrahima Diop dane yabnul xadimi la si yuddoxa bi fadilina maanaa la fadluka la unsa wala dakar sabaxta jiilaka fi ilmin wa fi adabin wa fi fadail lam tusol biha fikr dane doomi sëñ Tuubaa ji ñuy wax sëñ Fall làmboo na ngëneel yoo xam ne xel mënu koo xaram mm. jiitu nay kemam ci xam-xam ak teggin ak ngëneelul yàlla mu nekk boroom xam-xam boo xam ne dafa géeju te ku dégg ay waxam xam ko waaye mu jël lim lim bokk ak sëriñ bi muy woy juróom mu jaay ko jënde ko teel bi jaay ko bi mu ko jaayee ba sëñ bi jënd jël njëg gi ba nopp mu joxaat ko andi allahu akbar loolu da ko bindit hmm? yaa ayyuha sheykhuna fiisil murtaja yaa fatihan ma kaana murtaja بعت بنوتي بالإرادة لكن لكي أخذ بخرق عاد من بعد ما سريتموها مني فإني أهديتها لكم بغير من يا سما باي ما هو جاي بس نيكي تاي بلا كو جاي أم لنجك نجك جيما لكو جاي بغا تيكو بغا جوخ موكو بغا مومكو ما لكو جوخ أبي بغير من نك تطوك ما تدي نيخ جلم بوكو موم جايكو لو سنتوبا واخنا نون لا ملتي رسول الله تي بكو مون نون لا ملتي سنتوبا سنجو با داني ناي دوم فاتي علال فاتي لب موي موني حبي له دهر يغني ان حبي سوا فخلال سنج في كل حين نك بايك تي نصف كو دمو عند الخديم فرض ارا ني دا مكو بغ با رونغون غوي سوتي كو سا فرات لا كو جاب تي ناخ بغ الله اكبر با نوب نك يور مكارم الاخلاق دون سنج توبا تي يا ابن الخديم الذي ما حل ساعته آت يراجيه إلا صلى kuma sa wacc wàcc rek lo bëgg du xoti seetil du tas yaakar du daw ko ko laaj ku laaj mu jox la nga gijeel fa lu xani mm. jikko yoy ma la wax legi moy du xoti saatir du tas yaakar du daw ko ko laaj ku laaj mu jox la nga fa lu xani yu la am drapeau bi ñetti couleur ko composé muy ak ak ci jël melay bopam

doon koo xam ne mooy xun mun faqiir way ñàkk yépp mooy seen sàq nekkoon koo xam ne ku ma sa jàq baa nga tiit boo ñëwee fu mu sa njàqare dañ xajoo ñëpp seeni bang bang te bari yërmande nu waaye bala mel mu man laa supporté mas naa wax génn kilifa na ko gane si mam mu ne ko man mbàkke damay ganuk sën damay ganuk sën bari taq-taq sëñ Fallu na ko may ëttub géej boo ñëwee lu diis diig Lo woyof na tong ci kaw bu dus ñewé nako tonet la ilaha illallah lu seen ëttub geej ci serigne fallu lu dis di Lo na tong ci kaw bu dus ñewé nako tonet mooy gi lepp mom serigne fadilu motax tax Modou Mamoun ñang neena man wadda hudda min al akhyar wa man jafa hudda bil akhyar sa yoo ko bëggee bokk ca gaañu sopp fallu man wa man man waddahu udda min al axyaari man jafaahu udda bil axyaari axyaar axyaar saa yoo ko bëggee rek bokk ca gaañu baax mhm. moom Serigne Fallou fii mu nekk koo xam ne moom Serigne Fallou liggéeyal Serigne Touba mooy yitteem Serigne Fallou dimbale jaam ñee yitteem mhm. Serigne Fallou dafa nekk citoyen boo xam ne modèle la ci tabax réew mi waaye tabax adduna. Mhm. dëgg la. jullit àqan la ndax matal na ponk yi tabax juma bind kaamil aj màkk. allahu akbar. alaaji Fallou. ballu ban na nu juumun bi liw safut weer. Serigne lu mooy weer wi leen di jox leer. Mhm. alil Fadilu mislum falaa taxisu jawaadan bi ximaarin fa saara isu na ngeen seera ne fekk jàngu siin ba Serigne Fadilu lay def Serigne Touba. Serigne Fallou. ndeysaan dafa boole woon xam-xam ak ak yitte ju rëy quatre cent nangam mu fay ciy bor fayal nit ci nit ñi ciy bor lu mat six cent et quelques millions mu fay ko ciy bor maye ciy wata lu mat quatre cent nangam loobu lim bu kenn xamul lim tollu màkk huit cent quatre-vingt-six huit cent quatre-vingt nangam tabax juma ba noppi dëkk néeg boo xam ne boo ci tegee kër goo xam ne boo ci tegee biray almel mu lakk bàyyi fi dara lu ñuy doon lépp mu jox ko sëñ Tuuba am na njabootam ñoo xam ne 16000 lañ doon am ñooñ dañ na xool leen jumaa ji mooy seen wàll Allah xool leen jumaa ji mooy seen wàll sëñ Amadou sëñ Amadou Bari nee na ab gameel ak garam bu bu laa doon ci sëñ Fallu ab lan ab gameel bool ab bool rek bu yow laa doon sëñ Fallu te tabax jumaa ji toll noonu miiri armeel yi ba noppi dëkk ci këru né këru ñax dénk ngay ñax di fay bor tey faji aaju xam nga ko nax dool te nungu ko nag ngir bañ a tas yaakaari kenn sëñ Fallou moo waral mu nekk koo xam ne ñëpp la amoon relation bu rafet ubba islam bi yëpp mhm. moo tax loolu may na ko tiijaanub sëñ Fallou njaagub sëñ Fallou naarub sëñ Fallou mm-hmm. nangami sëñ Fallou nangami sëñ Fallou ñëpp ko bëgg ndax alxalqu yàllu da mm-hmm. ahabuhum ilay anfaahum mm-hmm. mbindee fi njabootu yàlla ki ci gënal yàlla moo leen gën a jëriñ melokaan woowu mu yoroon jikko ju rafet joojoo taxoon ñëpp sopp mu sopp ñëpp fi ne boo seetloo ci biir kër sëñ Touba waxuma foo dem fekk ñu tuddee ko waaye biir kër sëñ Touba njaboot sëñ Touba yëpp da leen di tuddee doom cheikh yi mu toppaa leen tuddee leen ay doom ba tuddee ñoo xam ne ay doom sax nekkuñu ci réew mi Cheikh Ibrahima Fall ak Cheikh Modou Massamba Diop sëñ Modou Mamoun ak Cheikh Awa Balla ak sëñ Modou Xabbaan ak ñëpp mu di leen tuddee ay doom Maam Mor Jaara Bolom Caam ak ba tuddee Ahmadou Rafaani ak Ahmadul Badawi ak Fanta Madi loolu lépp jikkoom ju rafet jikkoom ju rafet moo taxoon ma xajoo ñëpp moom sëñ Fall bëgg Sëriñ Tuubaa jeex ci moom tàkk te nangoo liggéey te xam fi muy teg tànkam fi muy jaar loolu tax na ba sëñ Pape Mhm. jëmmi sëñ Fallou. abdoulaye taala ñi mu bokkal sëñ Touba sax gën a bëgg. ñi mu bokkal sëñ ñoo ko gën a bëgg. Mhm. waggar ko te nungu sañ sañ ma bëtinam nag ku jubóog boromam la. Mhm. amul addis bi wax ne ab jaam dana jegeñ jegeñ lu yàlla ci ay naafila ak jëf yu baax. ba mujj mu nekk nopp yi muy déggee. yàlla nekk nopp yi muy déggee. nekk bëtam yi muy xoolee nekk loxo yi muy jàpp. ndeke ku nekkal yàlla tam doon dëgg looloo lay may loolu. xam nga léegi-léegi ñu réyal loo xam ne ñàkk xam yàlla koy waral waaw fa isa saal xibaadi fa anni xaribu ujibu daxwata daaxan isa daxani yow mi amul connexion kay mhm. amoo crédit bi te téléphone batterie néew ji mënoo jote <laughs> boo ca sukkandikoo nag ba ne fii kenn du fi woote ak ku woote kenn du jote yow yaa mënta jotee mënee su laa jot waaye am na ñuy jote ñu di leen jot bàyyi leen ñu woote wallaay <laughs> te àggale ak seen mooy yegg nañ fa fañ war a nekk te bëgg nitu yàlla lan moo ci nekk ci njariñ inna mahabbata awliya al axyaar kanzun azim min kunuzillah isla yuhibuhum ila man arada laa an yafus mm-hmm. ku yàlla namul nga mucc du tàmbal sa xol nga bëgg a yàlla dégg la de kon Serigne Fallou léppam yàlla mm-hmm. léppam da koo jeex njabootam léppam alalam léppam sëñ Tuubaa la ko jox musta mhm. am dara muy bëgg sa nopp bu lay buy kañ sëñ bi mhm. da ngay defe ni kii sax du doomi sëñ bi yaa raa iman misla cheikh yi mhm. mahlan fala satara doo ko gis muy wër ku mel suñ sëñ bi doo ko gis moo mooy lii ñuy waxantu rek suñu waa ji ñëpp ko bëgg waaye noonu danga ko am loolu la daan wax wane loolu ba koy tagg ci diine la ko tagg xat jadda din fa abwaaka noo xat benaa nee na sëñ Tuubaa mii dafa yeesal diine mel ni moo ko tabax oh. daana ku tëy la woon koo xam ne ku ko ma sa jàkk loo gis ci moom mooy ak wegeel tëy mooy forte personnalité waaw moo nga xam ne boo ne ko jàkk da koy xemee mbëgg mm-hmm. waaye nag boo ne ko nag wegu nag waaw nga xam loolu la boole woon loolu la sëñ Fallou muy def sañ ci dëkk mm-hmm. mbooloo te bi mu sañcee Ndindi bu donga yi nekkee ci tool yi mu ne càpp ci daara ji mu ne càpp kaamil man bu nawet jotee mm-hmm. bañ tàmbali tool yi mu tàmbali kaamil bi bu ñoppee ci mbay mu noppi ci kaamil boole mbay maag lépp jébbal sëñ Tuubaa kaamilam te li gën a yéeme ci yërmande sëñ Fallu bindal na sëñ Tuubaa kaamil boo xam ne keroog bi mu ko bindee sëñ bi da ko teg ci dënn bi ne ko lépp mat na sàkkuwaat bu bindal ko beneen kaamil waaye xoolale ci sëñ Fallu jaayante ngir boroomam biggum bikki mbindum alxuraan moom bi bind lu beneen mm-hmm. waaye dana ko dama koy jaay ci sartu képp ku la sopp na loolu na texe na mucc. Mhm. xool moom day demaale gaaw sëñ Fallu daa daa yéenemaale ñëpp jàmm. daa ma sa wax jenn jëm ñu ñëw ndakaaru sëñ Fallu na ko ñaanal ma na ko maa ngi ñaan ko sukk jébbul. ku sukk jébbul mhm. yàlla na dem àjjana sëñ Fallu na ko ñu jébbul wul nag. mu ne ko sama yoon néew ci mu ne ko yaa yaa nay loola ci daxuus waaye ñëpp daxuus. ñëpp daxuus loola ci. ah loolu mooy irham jëmi xel waray sëñ Tuubaa ah, sëñ Fallu lu mu def ci sëñ Tuubaa la la la ah lu la tak usai pak mau gay bega yu bëgg a yóbbu karena sawara rek kii kii yooyu nga ne moom jàpp nañu nit ñëpp xam naa àjjana moom nii ñu ko programmé ñoom moom nar naa dana wéet ginnaaw koo en du dem ku la neexu du dem ku la raw du dem ku am loo amul du dem <laughs> ah waaw waaw dëgg nii ñu ko programmé daal àjjana yàlla suxurul sëñ Pape sëñ Fallou nañ la ñëpp du ko ne ko lu la ci ñëpp daxuus allahu akbar yàlla yàlla dugal ñépp àjjana teewul mu yàlla bi yóbbu ñëpp sawara teewul pour moom yàlla loolu du yokkul ci dara wàññi ci cëram hmm? waaye yërmande sëñ fa loo waral loolu wallaahi mu xajoo ñëpp bi jumaa yi Tuubaa ji noppee mm-hmm. bi ñuy danaan sëñ bi fii lañ toll tollale buñ ko weesoo weesal la ko loo jërut amut dëgg de boo foofu la jumaa ji toll mu naan ko fii lañ toll tonnal la fi buñ ko weesoo weesale la ko waaye loo jërut amut loo jërut amut loo jërut amut loo jërut kon lam jaayoon ci digganteem ak sëñ Tuubaa moo indi loolu te defe naa réew mi ñu bari xam nañ sëñ Fallu lu ñu jëflanteeg moom mm-hmm. boo doon wër tey def micro territoire di laaj da nga dékku ne sama maam nee sëñ Fallou ne ko woon sama maam nee na sëñ Fallou ne ko woon sëñ Fallou ne yi mu doon def daa leer ñaan ñi mu ko seeni maam ak seeni mhm. ñaa ngi fi ñi ngi fi sëñ mhm. Fall sant bi def bàyyi ko kon lam def seeni maam ak seeni bàyyi mhm. ñooñu lam defar ngi fi loo ko mënta wax ak ko wopp loolu ñaan yàlla la déggoog moom waaye da ngay xool lim joué lim dund ngay xool ñaata dëkk la sëñ Fallu sanc ñaata nit la sëñ Fallu tër eggale gi mu eggale jumaa ji Cheikh Moustapha tàmbali ko mu yeggale jumaa ji ba julli ko rek loolu ci yan yan yan yan jamono ko sëñ Fallu eggale ban effort la ci def. Hmm? ci boobu jamono ci booba jamono. lan la ko jaraloon ci boobu taxawaay. allahu xam nga modèle du fi jóg. Hmm. c'est lu waay mënul day xam ne moomu ko mënul damay bëgg loolu toujours ñu ko bàyyi xel. Hmm. am na ñooñ waxtu wi ngay wax yow di jàpp ne kenn doxul da nga leen gisu ndax danoo dem. xam nga taxaw ci gaar bi si gisoo kenn ci arrêt bi naan no dëkk bi dañoo yeewoo fekk yegg nañ dem nañ yow six heures nga jóg gars yi te loo tëddut dañoo ree rek taal dëkk ci arrêt bi nag naan dëkk bi dañoo yeewoo naan dañoo yeewoo fekk dañoo dem nga jàpp ne kenn demul waaw ah? dem nañu fekk na yow da gisul kenn fekk gaañ dem nañu xam nga tey par exemple wallaay misaal te te sëñ Saliou mii mujj ci doomi sëñ Touba yi radiyallahu anhu fukki junneeg ñaar la fi bàyyi ci dongay laxasaay te ab dongam du yalwaani moo lay dundal di la faj di la wodd dëkkal la di la jàngal te doo fay waaw loolu koo xam ku ko def ci kuy woote ci diine l'islam kon bu ñuy wax ci éducation defar nit xanaa war nañoo jël ci moom misaal mm-hmm. koo xam ne ñaari doom mënoo koo seere li may wax na ko sa ñaari soxna jubóogul mënoo defarum penc di dëgg la de loolu nag moo dal ñu bari Sénégal dañoo war a ànd nekk benn te yow sa ñaari soxna jubóowul fi ne boo réglé woon ba sa ñaari soxna rek jubóo rek ban bàyyi àtte bi rek penc mi jag mm-hmm. <laughs> fi ne kenn ku ne ña nga war a jubóol juboo ak ñoom rek mm-hmm. ñeneen ñan war a jubóol jubóo waaye wàcc sa tool nawet bi ñëw nga bàyyi fi sa tool mu booy xam nga te yaa ngi sëpp sa gopp dend ak kenn ab toolam ñax ma bari fa nga sëpp sa gopp au lieu que nga bay di yéemu ci ñaxam mu bari ma naan sa waay toolam wala gerte gi dana yàqu mais yaa ngi taxaw yow te ngaa bay fekk yow bàyyi ko ñu baax ñii looloo taxoon ñu raw xam nga xam nga sëñ Fallou xoolal ni ni nit daan def mel ni da koy nax te da koo xam ndeysaan ñëw na ko damaa rayu tubaab ak mhm. am soxna mu am gone yow laa ko tuddee mhm. for gone gu tudd fallu ñëw na ko kii fallu la tudd lépp mu supporté hmm? loolu mooy jikko ju rafet ndax yaakaar lay bañ a tas mhm. kon jikko yooyu mhm. buñ bëggee sëñ fallu dañuy wax ne nit euh, ku mu bëgg da koy roy kon jikko jooju rek yooyu lañ war a roy bañ a bëgg mag ñi ak yéemu ci ñoom te duñ roy seenu dox te wallahi ku la dàq jotu la lu mu for sànni la. dëgg la. ku la dàq jotu la. lu mu for lu mu for sànni la. <laughs> te nag nit day am fulla. nit day am fulla. am nañ ay roy ay nañ leen roy. te yéenante ñëpp yéene yéenante jàmm. lu waay bëggal boppam bëggal ko mbokk ab jullit sax moo warul la toog di xalam ci mbokkum jullitam ab safaan. ab jullit warta def loolu. daa war a bëgg ñëpp mucc. ba noppi xalaat na bu fekkee ne am na kenn ku dul mucc moom la war a doon mu mañ ko jorte kenn waaye defe na yow yaay mucc waaye ñu si loolu du jikko kon waxtu bi cinq heures du jot na waaw ah, doyaluñ de Sophie Sophie indi xëdd bi ginnaaw mënta euh, yii ne xanaa man danaa leen tudd kon waaw man ma jox la sama addiya sëñ Fallou rek waaw doyaluñ de waaw bisimilah kenn doyalul. waaw euh, ah. léegi uh-huh. ah. parce que bu fekkee ne matul. Uh-huh. am na ku ko bëgg a jox te mu bi toog. Euh. bu ñeent am na ku ko mën a jox. comprendre ah <laughs> ah a dégg. kenn def maa waaw ah. lii moom. هذا الاف ادي السرج ما شاء الله كسر ليمون ليمون moom yéeme na di. addiya Serigne Fallou. lu ma am moom la. macha allah lu ma mel moom la. macha allah waaw ñàgg mi soriwul xam-xam bi bëriwul. waaye moo waral sama coow li. yàlla nañu ko yàlla fayal. ak soppee Serigne Fallou yëpp. macha allah waaw. jërëjëf. tubaarkàlla jërëjëf sëñ Pape. yàlla na yàlla fay. na yàlla nangu moo ngi lay gërëm maa ngi sant kilifa yi ma doon wax sëñ Bachiru moom Cheikh Abdoul Khadir mm. sëñ sëñ Ndooy mi ngi koy wax léegi ki démb rek gis nga ko mu ñëw sama kër dëgg la jàll si sama way jur mu nekk kilifa gu baax gu woyof mm-hmm. mm. kenn dafa wax baat bu yéeme dama ne ko dane dane ñëw gi ma fi ñëw du bëgg gi nga bëgg waaye bëgg nga bëgg sëñ bi ma fi indi dëgg la daan ma bëgg sëñ bi xaas la daan na ma bokk ci sëñ bi xaas la waaye la cay tax a jariñu mooy liggéeyal sëñ bas ku mat a ñaanal la lim yanu ci yoon wi te kenn du yeb yoon wi jaaree ko ci moom kon maa ngi koy nuyu ak sëñ ji ma ne fi moom sëñ Abdou Samad mi duggoon léegi mu sëñ Chouaïbou ak sëñ Abdou Samad ak sëñ Amsa mu Cheikh Abdou Lahad borom Xuddaamul Xadim moo ko sëñ Basiiru Coro ak sëñ Modou Karam Mbakke Nooréy nga xam ne moom